si wàllu wér-gu-yaram ndax gis nañ fi mbas bi fi wàcc si ay jamono ñetti at a ngi mbas moomu jur ay jafe-jafe si koom réew yi mu jur ak karange réew ak doomi réew bu nasax maanaam dafa nasaxal karange doomi aadama yi rawatina suñu réew yi réew yi nga xam ni seeni i koom dafa dafa amul dañu amul doole maanaam bokk na moo ñu wax tamit mooy réew yi nga xam ni dañu pauvre ñenn ñi ñoo koy tuddee réew yu pauvre bokk na ci ñun réewum Afrique yi xam ngeen jamono ji ñi ngi seetlu ni réewum Europe yi mooy dirigeant wu dëkku Europe yi dirigeant dëkku Afrique euh, dëkku euh, Amérique ak Asie ñi ngi dajaloo ñi ngi dajaloo ngir boole seen doole boole seen doole ngir mën a génn xool naka la ñuy def ba génn si jafe-jafe yi àdduna bi jànkoonteel ndax xam nañ loolu lan la mën a jur ëllëg ci koom-koom ak ci doomi aadama yi wante ñun réewum Afrique yi ñu ngi nelaw ñu ngi nelaw ndaxte jamono ji ñooñu di seet naka la ñuy def ba génn si maanaam crise yu ñu ne si jafe-jafe yu ñu ne mu doon crise wér-gu-yaram crise ci koom-koom mu doon jafe-jafe si euh, maanaam mbënd yeeg ak pékoor bi te ñi ngi wax ni kat fi nekki jamono dina am lu ñuy tuddee famine famine mooy xiif xiif boo xamante ni li ko indi mooy gis nañ guerru Ukraine ak Russie li mu jur ñu war ci jàngat lu bari li mu jur mooy mbay mi daf ko nasaxal ndaxte li ñuy wax engrais wala fertilisant dañu ko téye

ba jël nguur gi kii naka lañuy ñuy def ba téye nguur gi bañ ko bàyyi mu jur lu bëri si suñu réew yi te dem nañ sax ba léegi ndeysaan ay doomi aadama ay ndaw di ci ñàkk seeni bakkan ñu di leen di def loolu yoo xamante ni seen waajur si ñoom dong lañuy ñu yaakaar ñu di leen ñàkk doyen Jean wax na doyen Jean Fall wax na conscience citoyenne defe naa jaar ku ci nekk wax na loo xamante ni ak suñu mbokk wax ndaw ñi ñu yeewu xam ni li leen war mooy jub liggéey li leen war mooy jàng wér ngir ëllëg ñu naka la ñu def ba seen nag lan la réew mi di ñu jëriñ mais ñun naka lan lañu ñu mën jëriñ suñuy mbokk suñuy dëkkandoo suñu réew looloo am solo wante réew jamono ji mënuñu ko développé tant que booloowuñu looloo xew te booloo boobu mooy doole ndax gis nañ ko comme ni ñu ko waxee si njëlbeen ni nasaraan yi ak américains yi nasaraan yi européens yi ak asiatiques yi ñu ngi booloo ngir génn si jafe-jafe yu yu ñuy jànkuwanteel kon ñun africain réew Afrique nañu am benn dellu ginnaaw xalaat lan moo war ñu féewaloo ko léegi ñu boole suñuy doole boole suñuy xam-xam dajale suñuy doom suñuy koom-koom ñu bokk ko liggéeyandoo ngir génn si guute gi ñu ne ndaxte kat bu ñu seetloo réew yu bëri yi nekk si àll li leen di dundal si suñuy suuf lañ ko jëlee si suñuy géej lañ ko jëlee lan moo war ñu mën a continuer mel ñun si xiif si ñàkk te ñoom bu ñu jëlee ñun ñu dem jëli jéegaane indi suñu koom-koom dellu si ñoom nañu yeewu te bàyyi xuloo bi xiiroo bi ŋaayoo bi way politiciens yi nañu xam ne li leen war mooy saafaral jàngoro askan wi du leneen ku falu ngir am alalu boppam moom rek génn ci moom ak njabootam defe naa ni ëllëg di nga ko layoog sa borom nañu ci bàyyi xel ku ci nekk dafa ñëw indi mission ku ci nekk sa mission ni yàlla ni ñu yàlla sàkkee indi ñu si kaw suuf ngir dong ñu jàmm ko te jàmm boobu liggéey si la bokk nañu liggéey am yërmande suñu biir bëggante jëriñante boole ku nekk yéene sa moroom waxuma li nga yéene sa bopp mais li nga am nga yéene ko sa moroom defe naa ni kooku buñ ko defee yàlla mën na def ñu génn si jafe-jafe yu ñu ne loolu la ñu waxtaan ak yéen tey ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di masawu coono. toute, l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.